ba ñu bañ a prolongé li nga xam te mooy contrat. bo man du ma préjugé dara damay jàpp ni rek danañ waxtaan waxtaan bu nga xam ni intérêt Sénégal bu nekk ku nekk bu lalee ci boppam ak ci doxalinam war a mën a mën a jaay ay muus ou bien doole fii Sénégal kenn mënu fee jaay nit muus ou bien doole dañ ñëw waxtaan waxtaanee lu nga xam ne dinañ gën a rafete ñu xool luy intérêt Sénégal man euh, Aliou Cissé j'en profite pour lui rendre un hommage appuyé euh, parfois danañu am désaccord mais loolu ci biir la ñu ñuy waxtaan suma suma xarit la mu nekk aussi ku engagé wu ci football bi euh, man naqaru naa façon bi ñu ko defee bi ñu ko génnee parce que nit ku nekk lépp àdduna lu nekk dañ koy rafetal euh, bu ñu ko rafetalee lu nekk mën na cee judd te man waroon na ma ni bu ñu waxtaanee woon nu ñu waxtaanee am lii yëpp am lii yëpp du ci am kon luy nekk lañu ñu war a éviter parce que boo xoolee tey ci àddina pour la première fois Sénégal ñu ŋàññ ko partout la presse national comme la presse internationale te pourtant tey ñu doon tey ñii ñii nga xam ne ñu ngi ŋàññ ni ñu ko defee ànduñu woon Aliou mais sénégalais comme comme sportif de manière générale bëggul lu inélégant le sport est dans l'élégance et c'est une élégance permanente dama jàpp nit lu contre contre nit boo ko waree séparé wu nga séparé wu en de très bons termes et loolu moo gën a rafet et je pense que Aliou a eu un réconfort c'est que son travail a été magnifié par tout le monde et le plus important mooy lii am ci Aliou Cissé bu mu amati bu ñu tànn ñu tànnandoo ko ensemble xam ne lii mooy intérêt Sénégal ñu def luy intérêt Sénégal man nag intérêt Sénégal du ma si